Colonel Sène a ngi noonu gis ngeen fa mu jaar moom xale bi ndeysaan mu ngi noonu ci kaw stade bi Colonel a ngi noonu xale ci kaw tet tet a ngi noonu def na ko na Moustapha Gueye daan def buy dugg si stade Demba Diop loolu la wone tey mu ngi may fàttali ajuma loobe ba muy bere fii nii ci korite passé mook laafa noir nii la ñu defoon ci stade bi ndeysaan waaw ñu ngi noonu waaw waaw xel baa noonu ci kaw xel baa ngi noonu ci kaw lal jona ngi ñi mu war a lan lay xaar pour wàcc moom Nguel Dione Nguel Dione ci kaw def na ko na Moustapha Gueye daan def mais Nguel lu mu diw ci kanam bi nii lan la xeexee lii lan nii cey lamb cey lamb Nguel Dione lu mu diwoo ci bot yi Nguel Dione mu diwoo nii ceet tet tet mbokku internetu Ngoy TV bëgg naa leen leen wax ngeen wëkk di abonné waaw waaw vidéo yu leer yi fii la waaw waaw site bu leer bi fii la maa leen ko wax bu bëgg lu leer il nga jël Ngoy TV mu ngi noonu ngal jo ngi noonu ci kaw ndeysaan ngal jo ngi noonu tala baa ngi noonu laa wax waaw waaw naa leen def na ko na Moustapha daan def def na ko itam na ajuma be defoon keroog ca Korité ba fii nii ci bu Bambey waa xale yaa ngi noonu ay lamb moo neex Jara yi noonu di wàcc yi noonu di wàcc mu ngi koy tungoom mu koy tungoom mu koy bon xale baa ngi noonu mu koy bon muy dugg si xale baa ngi noonu nee naa leen Ngol Jara yi noonu affaire mu ngi noonu daanaan baa ngi noonu dugg na daanaan baa ngi noonu xale baa ngi noonu xale baa ngi noonu ñu boot ko muy wër géew bi ndeysaan waaw waaw yàgg kaw mu ngi noonu Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. yéen wa ngoy yéen wa àdduna képp koo xamante ni abonné go rek dawal si ngoy tv nga dem abonné nga mon di setan lu ñu mën di duggal nga dem setan ko incha c'est meilleur ngoy tv c'est meilleur ñu len di ziar di la ñaanal jàmm te di ko sàkku